waaw

commune Maka Yop aussi amuñ ko dul man tey boo xoolee maanaam commune bi amul ku ma xamul tey boo ma yóbbuwoon ba Koungheul dana xam ko dana am ku ne ma kii xam naa ko maanaam ak Dakar fépp kon bu demee ba loolu am ci may tey ndaw di mag gune yi topp sama ginnaaw tey ci tey équipe bu paa yi man may sol numéro 7 bàyyiwu ma ko xale yi xale yi football fii man ak seen papa yi ñoo doon football kon bu ma demee ba daj ñoom ci terrain amaana cër buñ ma may la ak cër bu ma leen may tey fante bu jógee ko ba Koungheul jaar fii ne dafay may day wax ak man ci wàll nu mu defaree fi mu cosaanoo kon awma leen lu may def su kontaan fas yéene mobiliser ànd ak xale yi ànd ak moom fas yéene liñ bëgg ñun ñëpp yàlla may ñu ko ñu jëm ko def man nag sant naa bari gërëm naa bari sant naa Ibou njaay gërëm naa Ibou njaay sant naa yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom mu jaral leen ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw pour ànd ak moom kon awma lenn lu dul di leen sant di leen gërëm te sant bee gërëm man njëkkee ci sama waa gox bi souvent dama leen di jiital luñ bëgg laa bëgg luñ bëggul bëgguma ko te luñ bëgg damay def le tout ñu gën koo bëgg li ma bëgg damay def le tout ñu bëgg ko kii tey yàlla nañu yàlla boole ba lim bëgg ñu doxal ko ci li mu bëgg ak fi mu ko bëggee yàlla may ko ci ndam may leen ndam di sant yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi seen lépp ànd moom ba mu jaral leen man jaamu yàlla bu tuuti bii bu doonul dara ñëw uniquement pour man kon awma seen pay yàlla mu am fay yàlla na ma leen yàlla fayal ca barki Seydina Muhammad kontaan naa sant naa leen tey ci tey nañ jéem a xàccandoo dóorandoo te yàlla def ne maanaam doomu aadama Ndiaye ñett yi la rek xel mu sell xol bu laab jëmm ju wàcc tey bu nekkul ci nit rek nit amu fa kon ba tax na kon loolu mën naa wax ne mu ci yéen def ngeen le tout jaar fi uniquement pour man jaamu yàlla bi doonul dara kon nag na ñu yàlla may ndam lépp lu ñu bëgg sombi ko ñu xàccandoo dóorandoo yàlla ñu ci ndam fanta sant naa la gërëm naa la sant naa ñëpp ànd nañ ak yow ba tax nga fekk ñu ci terrain bi dama koy doolee sante yàlla parce que terrain lay xale di fooye te xale tey mooy doon mag ëllëg mag yi ëll tey nii ci ginnaaw xale yi lañ toog te man yàlla suturaal na ma xale yi may nañ ma ndam. ngi nuyu waa Maka Yob yëpp te di jéggalu nag parce que wax dëgg yàlla seen activité bi ñun xaw nañ ko perturbé tuuti mm-hmm. waaye mbégte la rek ak ku nekk aussi ni nga toll rek noonu lañ lay fekkee parce que yow wax dëgg yàlla ibu mi ma booleeg yow li ma wax si yow doy na sëkk te foog naa ne la lii firndeel na ko parce que bi ñu ñëwee ñu gis xale yëpp ci sawet wet ñi xam ne xale fu amul jàmm du fa nekk te foog naa xale boo ko bëggee mu topp la ca lam bëgg aussi da ko ciy fekk si te gis naa ne wàccee sa bopp ba tolloo xale yi kon ñun bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla yaakaar ji dafa gën a dëggu bokkul ak sax yaakaar juñ fi ñëwee woon mais gën na yokk parce que ku nekk xam na ne ndaw mooy tabax réew te ñi aussi dañoo am solo ci réew mi te dañ leen war a déglu dañ leen war a jege mais dañ leen war a comprendre aussi te gis naa ne loolu aussi yow yaa ngi ci kon ñi lay ñi lay remercier rek te di la tàllal loxo di la wax ne suñu tànk yi tànk yaakaar la mhm. yaakaar bu ñu am si yow la c'est vrai que nekkoo di def politique mais nit kuy def développement nga te développement ak politique ñooy ànd moom moo lay dimbale ba ëllëg boo duggee si politique lépp li nga bëgg yàlla may la ko xëy na loolu moo tax tey Ibou Ndiaye am yaakaar boobu si yow ak bari ñun tamit yaakaar boobu ñu ko waaye bañ ñëwee wax dëgg yàlla gën naa yokk kon ñu ngi lay tàllal loxo Oma mhm. di la wax ne département Koungheul ñun ñoo ko bokk tey ñun ñoo war a ànd taxaw liggéey ko te képp ku mel ni yow aussi ñu ngi koy invité mu ñëw ñu ànd liggéey parce que benn bëgg-bëgg lañ am benn objectif lañ am mooy tabaxaat suñu département te loolu man kese mënuma ko mais ay boroomi xam-xam laa ci àndal ay nit yu déterminé wu laa ci àndal te yow wax nañ lañ ma wax si yow rek xam naa ne boo féetee fii wax dëgg yàlla di nga ñu apporter lu bari mais dinga nga aussi commune Maka Yop lu bari parce que nag commune Maka Yop ñun dugg nañ fi yàgg nañ fi dugg mais bëgg nañ fi gën a dugg parce que lépp lu ñuy def si département bi ñoom bëgg nañ ñi gën cee gis seen bopp te yow wax dëgg yàlla ak euh, ni nga ñu teertoo ni dina tax jéego bu ñu doon def Maka Yop ñu gën ko yokk ba mu gën a bari man daal maa ngi lay tàllal loxo te di bëgg nga waxtaan ak ndaw ñi aussi c'est vrai que football la ñu bëgg mais tey réew mi fi mu toll tey ndaw yi dañ ci am cër bu am solo tey ñun département bu kenn du jugee fenn di ko defaral ñun ñoo war a takku ànd ak ndaw ñi aussi tabax suñu département te loolu am nga ci part de responsabilité kon ñu ngi am yaakaar bu baax si yow que di la sant di la gërëm merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen balu àq di leen baal àq di leen wax ne leen honorable député Fanta Sall lii bettut ma ci moom ndax honorable lu ne def na ko fii ci sanc aada wax dëgg ni yàlla honorable kon gàcc ngalaama honorable député Fanta Sall Fanta Sall tey ci tey sama maam sax dafa génn àdduna ma waroon a dem teewee ji ndiki ndiki ndiki ndiki foofa mënumaa dem ngir Fanta Sall Fanta Sall nee naa la dinañ la jàppale ndax indil nga ñu tiraanga ndax wax dëgg yàlla nit de bu ma dokkee ci dëkk bi lii ma waroon koo def yàlla dogal xaw ko manuma ko Fanta Sall indi ko def ko fi dafa mel ni man la ko defal kon sant nañ ko gërëm nañ ko. di nuyu suñu yi. rawatina Fanta Sall ñun ASC Médina Dégguy ñooy taxaw di la nuyu di la dalal fii ci Médina Dégguy ndaxte ñëw nga sa dëkk boo xam ne yaa ko moom. gars ñu ànd ak tuuti ñu ànd ak dégloo. lépp loo xam ne maanaam tey mbégte mën nañu wax fii la dalee waaye waa ASC Médina Dégguy seen mbégte am na fu mu dalee amul fu mu ñu ngi laa di la talal di la wax yow rek la xaar nga yegg si fii. te tey nag dañ ñëw pour waxtaan ak yow si sin mbir jëm ci wàllu dëkk bi muy nag dëkk moom boo fi ñëwee boo amul sën daanaka amoo fi dara te sën ñu fi nekk tey lu mën a xew ci dëkk bi ñooy borom kum neex kum naqari sën moom dëkk bépp mag nag xañ na mooy ñuy bu ne mu dem tey nag sën ñu ngi woon sa gannaaw démb ak tey defal nga leen lu rëy sën yëpp du ko nawloo depuis ñu jëg ne yaa ngi fee ñëw sa suba ba tey mbiri jigéen nga oote na jigéen ñi ngay may pour lu jëm si wàllu machine waaye sën yi bañ neen ko ba ten bañ bëgg a dem def entraînement ñu ngi lay bàyyi xel pour boo ñëwee ñu ma laa delloo njukkeel waaye yàlla def na xaar ne la ba dem ten teene jot ñi dem waaye ba leen téggee ne départ nga teru ñii dem na ñi ngi toog di la xaar ñu ngi jégalu nag si ñàkk a ñëw fekk fi ndaw yi dëkk bi gannaaw bu loolu passé dañ lay wan ne maanaam suñu li ñooy dang ñu defaloon kóllëre rek ñu laa gën a dellaat kóllëre defaloon nga defalaat leen léegi dañuy tax laa laat seen loxo di le ñaanaan nga seet loo leen mën a jàppale pour wàllu nawetaan bu ñu wàllu jublu nii ñun nag defar suñu dëkk moo ñu ñor du fal football sax waaw dañ ci toll moo tax ñu di la ko wax loo ñu mën a jàppale suñ hôpital ba din kii bee moo ñu gënal armeel ya commencé neen ko booy nga ñi boo ko gisoon daañu la ko wan nal commencé nañ ko loo ñu ci waaye mën a dimbale bëgg neen ko. maa ngi nuyu honorable Fanta Sall maa ngi lay wax dalalal jàmm fii ci Médina Gouye ñu ngi kontaan ci yow kontaan nañ ci yow lool bu baax a baax ndax jigéen moom boo ko andilee machine wal defe naa desalatoo koo dara mu am lu muy liggéeye waaye wax ji am na lu des ñi bëgg nga jàppalañ ci gars yaa ngi def sa devoir toogoo guddi toogoo bëccëg heure boo demee ensemble yaa ñu ngi lay gis yaa ñuy xaasal bët bu set kenn musagut a toog foofu tudd suñu ndox suñ ñàkk ndox gi heure boo demee ñu ngi lay suivre yaa ngi wax suñu ñàkk ndox bi suñ problème forage bi waaye ku ñu taxawu ci ndox moom lañ bëgg nga jàppale ñu ci suñu forage bi jàppale ñu ci te yàlla tax ndax sonn nañu lool. Eh, di ci dégluwaat bu baax a baax li ngeen wax di koy rafetlu mais nag aussi di jaajëfal bu baax seen seen taxawaay ak seen terrain bi ñu ngeen ñu jox. gis nañ ne day taw moo tax do mu tombe julli mais nag lenn rek laa leen di ñaan e adduna biñ toll nii dafa am nu muy doxee te réseaux sociaux yi ñu ngi fi ñun aussi dafa am li ñu yor soo xoolee téléphone yi ñu ngi woote fu ne mais balaa ngay woote da nga am réseau te réseau bi tey mun naa ne mooy suñu honorable député Fanta Sall parce que yéen a ko fi wax nekk na assemblée di leen fa jooyal kon mooy réseau bi saa yu ñu fexee nag ba réseau bi coupé ku jëndati crédit itam dootoo mën a woote te réseau moom moo ñu fexe mu nekkal ñu fa réseau bi continuer yéen a wax ne mu doon jooy forage forage bi panne na depuis te mu ngi ko doon jooy nee ngeen su ngeen amee wol aussi du ngeen am lu ngeen su ngeen amee lu ko sebete mais balaa ngeen di sebet aussi il faut mu am réseau bi continuer di leen koy jooyal nekkul koo xam ne daf leen mën a indi ndox daf leen mën a jooyal ndox ñëw mënu leen indil courant daf leen mën a joyal courant mën a ñëw li mu mën a indi mooy li mu mën a yëkkati ci xaalisam def ko moy machine bi kon ku la jox machine su la ne man tamit danaa la joyal te yàgg naa joyal war nga koo gëm nit ki nag duñ ko wax lu mu xamul li lépp luñ koy wax adduna baa ngi fii dara umpeetul te loolu yéen ko wax seen bopp nañ fexe réseau boobu continuer mu bañ koo dagg te loolu yéen a ko mën a wax yéen a ko mën a dox yéen ko mën a jàppale ba foofu mu yegg foofu loolu rek laa amoon lu may a ji jégalu bu baax ñu ngi nuyu honorable député Fanta Sall ak ñi nga àndan xam naa mënuñu lëm ñëpp mais suñu waxee honorable ñi nga àndal yaakaar naa làmbaale na ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen tasakal di leen wax bisimila fii ci dina Gouye ndax nammoon nañ la fi lool wax dëgg yàlla a ni nga ñëwee saf nañu neex nañu macha allah li ngay ñaan yàlla nag mooy yàlla yokk la ba nga yëg ko ba nga xam ne fi nga bëgg a yaa ko xam yal na yàlla jàppale la ba nga yegg fa gannaaw loolu it wax dëgg yàlla sëñ bi waxtaan naa ci ak moom kontaan na torop ndax lam la waxoon ca première fois bi ñu fi ñëwee daf la waxoon na la fanta nga ne moo ah, mu la lay wax dëgg yàlla day taal nga jumaa ji waaye kenn mënu lay tere tàkk bi nga defee loolu ba pare nga delle yëkkateyaat benn final bu mag delle ko tëggal xale yi mu ne ku taal xale yi taal mag ñi kon yow kenn mënu lay tere takk kon Fanta ca kaw ca karam loolu tege ci nga dellu ñëwaat Fanta indiwaat fi machine wal ne leen jigéen ñi dimbale woon naa paa yi ci jàkka dimbale naa xale yi ci seen fubal bi mais kon manit ma dimbale jigéen ñi ci seen machine wal kon bisni ki tey ñëw na kon gàcce njaaraama ak mbana yi ak basan yi mais dama ne gars yi ku la dig reer su la la dinaa la jox añ bu ko weddi te xam naa ne sa mébét tey ci tey su fekkoon ne dañ ne Fanta moo yoroon lépp kon sañca aada duñ des ginnaaw mukk ci àdduna bi mais nag sa yéene nit ñi xam nañ ko yàlla nag mooy sottal yal na yàlla yëkkati la ba ca kaw mu taaw la boppam ñu ngi lay sant guddi di la sant bëccëg te nag gëj a déggante gi duñ la ci jàpp de ndax xam nañ activité nga xam ne moo am ci Sénégal te ku ne xam ne sa taxawaay ci départemental bi parce que jooyal askan wi dong nga fi nekkal waxal askan wi dong moom nga fi nekkee su ko defee buñ la ñàkkaa dégg duñ la ko jàppee ndax dañ ne ku ñëpp soxla doo am jot te fanta ñëpp la soxla fante waaye ñëpp nga yaay tasagal ñëpp fanta ñu lay gërëm di la sant waa sanc aada gërëm nañ la sant nañ la di la gën ñaaxaat nag na la loo man ci ndox mi même bu dee na teen la nag ñu ko defal te yàlla tax son nañ torop ci ndox mi ndax sànq rek laa ko doon mujjee wax téléphone léegi nii dama ne waa sanc aada ni ñu mel ci ndox dafa kéemaane fante nag def nga ci sa kémte lay kattan ku ne xam na ne soo yoroo ndox mi tey ndox maa ngee baawan Sénégal ñoo ko tànnal suñu bopp kon tey bu ñu fi yàlla indiwaatee dañuy am mbégte bu baax ci loolu ñi ngi jiital ci nuyoo bi sëñ Modou te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñi ngi nuyu imam bi mais di nuyu jeunesse waa Médina Gouye di nuyu jigéen ñi bu ma ñëwee ba Médina Gouye nag ngeen baal ma dinaa am ay nit yu ma beral nuyoo ku ci mel ni Mbaye Taw maa ngi koy nuyu bu baax mu nekk sama xarit di nuyu aussi malik Ba mu nekk sama xarit di nuyu Matar Seck mu nekk sama mbokk nekk sama xarit tuddee ma doom di nuyu jigéen ñëpp di nuyu yaama waaye maa ngi nuyu sama nit yi ma am ci commune bi te tey ñu ñëw gunge ma fii ci Médina Gouye ma mun ci lib Ibrahima Gueye ñoom Ibou Laye ñoom Sidi Makhtar ak ñoom Bouba Diakhaté ak ñu nekk ci ci commune bi yëpp di kontaan bu baax ci gunge biñ ma gunge fii ci Médina Gouye loolu day wane na rek Médina Gouye dëkk bu am solo la ci département bu Koungheul ñun ñu teel ko xam nag te teel ci di dox teel leen jox seen wàccuwaay mais teel leen a yaakaar aussi si ay ñaan foog naa ne Médina Gouye bi xaaju guddi sax bu ma neexee ma xuus fi ñëw nag ndax bi ma fii njëkk di ñëw bi ma fi njëkk di ñëw dëkk bi lëndëmoon na trop foog naa sama premier mandat li ma ci wax Médina Gouye moo ëpp te lan laa doon jooy ci Médina Gouye mu am courant am yoon am ndox am forage. way way ci benn yoon waaye bàyyiwuma ko état aussi ndax bi ma njëkkee ñëw fii sëñ Modou daf ma taw a tawatal ne ma jumaa ji de lëndëm na trop te si lay julli bëgg na ma defal ko ci solaire ma dem ba Chine jënd solaire ñëw indi ko ci jumaa ji continuer di ñaan pour fii am courant kon bi ma ñëwee ba gis làmp yi tàkk kontaan naa si trop bu baax a baax beneen bi mooy final bi ma njëkk a jël ci département bu Koungheul na Déguy bi laa ko jëlee na Déguy bi dugal naa fi financement Médina Déguy bi ñëw naa fi ñu tawatal ma seen hôpital te gisoon nañ la ma doon kaas assemblée pour mu am hôpital xaaruma état indi hôpital dama tekki ci sama sœur ñaari tonu ciment ma ne maa ko tàmbalee ci hôpital kon fii boole sama bopp te fii laa dëkk saa bu ma neexee mën naa fi ñëw foog naa ne ñàkk ndoxu mi dina dégguy ñi ma xam ñëpp xam nañ ni ma mettee te du ma pula mi dina dégguy du ma ko politiquer parce que ndëkk bi ni mu toll la te dafa am yoo xam ne jar na politiquer mais am na yoo xam ne jarul politique dëkk bi ñaan laa fiy sàkk ak barke kon bu ma doon politique tamit dinaa dem feneen fu dul Médina Gouye bi seen forage bi ne ma leen di wu bu baax a baax te mu nekkoon loo xam ne nit moo koy mën a def foog naa ne naan nañ ba bu yàgg parce que taxaw naa assemblée ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgul di jooy mu ne Médina Gouye dafa war a am ndox mbirum mbirum mbirum état yombul gaawul waaye foog naa ne jéego yu ci ëppoon solo doxoon nañ ko ba pare kon tey képp ku fi ñëw ne Médina Gouye fekkoon na ñun ñu wax Médina Gouye démb yàggul gis naa sama benn collègue député bu fi ñëwoon naam bokkuñu parti waaye man nekkuma député bu yaaful si sama gox lam doon kaas si Médina Gouye fekkoon nañu kaas que démb si Médina Gouye 2017 ba may nekk député Médina Gouye amul courant amul yoon amul ndox ma taxaw assemblée fu ma taxaw ne Médina Gouye ba ñëpp xam ko kon ba may kaas 2017 fan la nekkoon mu ñëw fekk ma assemblée ñëw fii xam nga état liggéeyul état baaxul yomb na waaye ñun nekkuñu ay député yu yaafus fii si département bu Koungheul bu fekkoon ay politique moo ñu fi indi konoon Médina Gouye bii machine wal bi dinaa ko yóbbu feneen fudul fi parce que sama élection muy élection député fii dama koo perte waaye damaa fasanteeg yéen kóllëre ne jàpp naa leen te loolu mooy dëgg si man. te kóllëre boobu tey laa ko gën a sambaat su ma ñëwoon Médina Dégguy ñi may sànni xeer sa du teex ma ñëw fi parce que mosuma leen a fenal te defuma fi njombe kon heure bu nekk bu ma neexee ma ñëw Médina Dégguy waaye ma bëgg ñi bokk yeewu. te arrêté manipulation yooyu man manipulation yooyu tiitaluma parce que man duma ma genre nit yooyu parce que man du ma fenkat te li nekk ci man rek laay wax li ma gëm bi ma fi ñëkkee ñëw ma ne damaa bëgg Médina Gouye taxaw ci boobu ba tey nag dañul député boobu di doon défendre Médina Gouye bi ñu faloo ba tey est-ce que dégg ngeen mu tudd Médina Gouye dañuy waxante dëgg rek te bàyyi caaxaan mais ñun ñi fi nekkoon suñu gëm-gëm ak suñu objectif loolu la ñuy continuer moo tax ma ne Médina Gouye bii du ñu dégg ne maa ngi séddale ay machine wal si département bi ma xam jigéen ñi lu ñu sonn ak lu ñu souffrir ci ndox ma xam ko xam jeunesse bi nu ñu nu ñu amee coono ñi may dégg ci département bi ma indi leen machine wal bi jox leen ko te lu tuuti la si li ma leen yéene te tey laa leen gën a jàpp tey laa leen gën a bàyyi xel parce que góor ca wax ja te nit amoo lu dul sa kàddu te man sama kàddu dama ko fasante woon ak waa Médina Gouye moo tax ba tey moom laay ñëw di feddali si kon ñi yeewu bu baax a baax te xam ne département bu Koungheul bi dafa am lu ñu fi soxla te yeggoogul li may wax ka forage bi duma ci wax lu paase loolu dox nañ ci ba li ci ëppoon solo paase na mosuma ñëw na Gouye ne dinaa leen indi forage te ku nekk xam na ne maa ngi defaraay mini forage di ko maye waaye damaa xam ne dëkk bi ni mu toll mini forage yi may joxe mënul couvrir dëkk bi waaye dégg ngeen ma koy xeex kane ne forage bi mit na dégguy bi mu ngi pare kon képp koo xamante ni bi ñëw na te ñun bañ ci mujjee dox ak léegi matul semaine parce que nag loolu ñun ñoo ko signé woon ak waa dëkk bi kane neen dox di dineen wax ba seen dëkk bi am ndox te tey lañ ciy gën a nekkaat même buñ ñëwoon ci dëkk bi ñu sànni ñu xeer bu ñu demee Dakar dañuy doxaat ci Médina dégg kon ma bëgg ñi bàyyi woon te xel te xam ne ñun dafa am lu ñu soxla Médina Déguy dafa bëgg yoon dafa bëgg hôpital dañoo bëgg ñu jàppale jeunesse bi gis nga ki naan ñi fi nekk baaxuñu baaxuñu ñoom biñ toogee ba tey est-ce que tudd nañ Médina Déguy pourtant ñu leen gis ñi dëkk fii kon nañu xàmmee ñii nga xam ne dañuy naxaat ak ñi nga xam ne dañuy wut tur ak ñi nga xamante ni bëgg nañ suñu waa dëkk man nag département bu Koungheul bi ku ko bëgg mën nga ko bëggale parce que fi laa juddoo màggee fi yaroo fi kon keneen bu jugee ci beneen département ñëw am na problème yu ëpp yu mu bàyyi ci département woom ñëw te fekk na député yi fi nekk nelawuñu te am nañ yërmande bu baax a baax tey lii ma jox leen pourtant xaaruma ko ci état waaye dama leen ko jox final bi ma fi tëggoon état joxuma ko solaire bi ma dugal fii état joxuma ko saisi ak mbana yi ma dugal ci Médina Degoy xaaruma ci état kon dañuy continuer di taxaw waa département bi waaye nag ndimbal da cee fekk loxol borom tey lu ñu bëgg-bëgg dëkk bi ma taxaw assemblée di xeex ci dëkk bi te waa dëkk bi jàppale wuñ ma doole ma xeex boobu dinañ ko xeex ba sonn te du gaaw a kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne di leen wax ne balaa nga naan naam da fay nekk assemblée nationale bu ñu yàlla dimbalee bañ dolliwaat bañ delluwaat fa ci la ñuy gën a am taxawaay ci Médina Gouye ci la ñuy gën a jàpp waa Médina Gouye mais ci lañ leen di gën a bëgg maa ngi jégalu bu baax. commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim yal nañ ko yeggali ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, ngeen baal ma àq nag kàddu yi du mun a gàtt. déedéet Fanta dafa ñëw fi mu war a ñëw du gàtt de dama ko ñotti bam na cóll cóllóoral waaw ndax li tax fekkee dafay war a tax xam ñoo ngi nuyu honorable Fanta Sall di nuyu délégation bi mu àndal di nuyu ñi nga xam ne ni ñu ngi jógee ci dëkk yi fasantikoo yi ci commune bi ñëw fekk li suñu lii di nuyu waa dëkk bi di leen sant di leen gërëm góor jigéen mag ndaw ñoo ngi wax ne li tax ma ne kàddu yi du mën a gàtt fekkee la rek di ñaan yàlla ñu fekkee waat ndax kuñ sebal mu neex nga yaakaar seppali ah kun nag bul ne yegg rek ba kiy seppali dem nga daan su ma yëgoon duñ ko def dafa sef bam tooy tawarikal Salla Ngaari dafa saf liñ ko bëggee woon defal nañu ko de teg ci nag ngor ak dignité ak fulla ak liñ yaakaaroon mu ñëw di ko dëggal bu ko neexoon karot bii di raje ensemble ñoo ko doon yónni woon di ko liggéeyloo ñu tànnoon ku mat a tànn ku mat a tànn mosul dem ensemble nelaw déedéet seetaanu département bi de damay wax ne ci bay Serigne Sarr bu luul fi la ma fekk moo njëkk a nekk député bii booba Kaffrine amul région ba bisab tey bii du góor du jigéen kenn ku dem ensemble yóbbu ko doléance département bi ak région bi ak territoire senegal bi fante yamu doon ci région bi kese Sénégal tout la doon waxal. góor ak jigéen ak mag ak ndaw da leen masawu yoon ci yoon yi ndax niñ ko bëggee woon sax xamuñ ko ko xiin moo tax yu bari mënuñ koy def. Fanta ñu ngi lay gërëm dala sant lii doogu de xam li nga indi fii doogu de xam ndax am na lu ko jiitu woon sa kàddu doyoon nañu ñu tëyee loolu te ba tey loolu yaa ngi koy dëggal ñu lay gërëm ci loolu dala sant da ñaan yàlla yow doomu dëkk mi nga mënuñ lay bañ fii nga juddoo fii nga yaroo boo fi juddoo yaroo fi bokk fii lañ dëkk ndax nag ñu ne jaan jaan la doomi jaanit it jaan la nu ngi lay xoolee bët bu ñuy xoolee dëkk kat gii kon mënuñ lay bañ li nga bëgg yàlla moo ko xam yan la ko yàlla defal dañ la jàppale ñu ne ci liñ man liñ man dañ la ci jàppale loo bëgg dañ taxaw ci loolu bu soobee yàlla jigéen nag xamul lu dul pas-pas te fas nañ xii ne jàppale la te yàlla tax fas nañ xii ne jàppale la te yàlla tax ndax ñun ñii ku ñu ngëp dañ la ngëp ndax politique kat yëgante la Moustapha yaa yow yow yow Fanta Sall yaa jara topp ñun dey ampeeru suñ ci fii ci araf suñ loxo ca kaw ci diggante Moustapha Ndong ak Fanta Sall ndax siggil ngeen ñu suturaal ngeen ñu sagal ngeen ñu ndax li tax may wax loolu Fanta Sall ba nga yéegee pale ba léegi bépp sa tiraanga boo ñëw na araf ñun nag ñoo ko dese ñun waa arafa ñoo ko dese ñun jigéen ñii danaa leen jam danaa leen cax ndax nit ki buy topp boo koy topp mu defal dara mu defal la dara dara tax kon xale yu dama bëgg ngeen jàpp Fanta Sall fukki loxo ak juróom-ñaar jàpp Moustapha Ndong fukki loxo ak juróom-ñaar parce que wan leader leader yi nga xam ñun ñoo ko xam Moustapha Ndong la ak Fanta Sall. man je me nomme Ndaw étudiant en licence 2 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar je parle au nom de tous les jeunes d'Arafat damay wax ci cadre jeunesse Arafat yëpp. di leen wax dalal ak jàmm jeunesse bi ñoo fi taxaw yaakaar naa ñoo fi ëpp di remercier suñu papa Malick Ndaw yaakaar naa ne lépp lu fi war nii lu fi lépp taxaw nii c'est grâce à lui moo fi nekk di jàppale jeunesse bi surtout si sport bi di président benn ASC bi ñuy wax Petit Lion ASC boo xam ne nii jeunesse bi yëpp yaakaar naa ASC bi ñu ngi fii nii neex sa ginnaaw damay wax nag ci kàddu jeunesse Arafat di la wax ni jeunesse Arafat ñu lay tàllal seen loxo bu baax a baax ñun ñoo fi nekk fii nii ñoo fi nekkal pour Sénégal pour ñun lay sant bi ñoo yor loxo Sénégal jeunesse bi li wax ni ñu lay tala loxo bu baax a baax surtout ma jeunesse Arafat. bi ma jëlee parole li ma la wax mooy Fanta nga ne ma ma ne la Fanta Sall ba nga dem ñetti yoon yaa ngi waxtaan ma ne la est-ce que yaa ngi may teewlu nga ne ma waaw bay fàtte loolu. ma ne la jigéenu dëkk bi machine wal loolu laa bëgg nga dimbale leen ci machine wal pour ñoom ñu am machine bu ñuy walee moomal ko seen bopp. bu neexee yàlla yoon te ba gis nga ni dóoree oon waar danañ ko dóoraatee waar te Moustapha Ndong ci boppam muy sama monsieur maa ngi koy sant di ko gërëm ndax nag moom itam macha allah bëri na communauté rurale bu fi jaar te li mu def defaloo ko fi li mu liggéey ci commune bii rusuñu koy wax rusuñu koy wane ndax li ne dàng kenn du ko jeex maa la bañ nag moo fi nekk waaye maa la bañ moo fi ne mais liggéeyu la kenn du ko wax Moustapha ndax ñëpp kon man sama maire moom dafa liggéey ba daanu moo ñi mu ànd ak conseil yi ci dëkk bi maa ngi sant ñëpp. maa ngi leen di nuyu te di jéggalu guddee bi waaye maa ngi jiital ci néew bi sëriñ bi maam Amadou Dramé sama maam te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom ak mboolem njabootam ak waa dëkk bi yëpp maa ngi nuyu borom dëkk bi ak imam di nuyu sama nijaay yi nekk ci dëkk bi. maa ngi nuyu sama maam sama yaay sama mbokk yi nekk ci dëkk bi yëpp di nuyu monsieur le maire Moustapha Ndong nekk sama càmmeñ ak sama xarit teewu fii waaye mel na ni mu fi teew may nuyu madame la maire di sama yaay nekk nit bu baax nit bu dëggu bañkat nag yàgg ma jàppale nag nga xam ne aussi doomam laa maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu taa xadi si ay moom it mu nekk jàmbaar nekk sama yaay aussi yàgg maa jàppale kon bu fi teewee nuyu naa waaye di nuyu waa bi yëpp maa ngi nuyu sama nijaay xaali moom dañoo sori moom xam na ko bu baax maa ngi nuyu bi nga xamante ni gis naa ko fii mu ñëw Malick Ndaw maa ngi nuyu di nuyu jeunesse bi yëpp maa ngi nuyu Baba sama xarit Baba Faye dëkk Miss la am taxawaay bu am solo ci sama wàll aussi di ma jàppale kon teewaay nekk na loo xamante ni lu ma rafetlu la maa leen baax di nuyu leen yéen kii daal da ngay jiw parce que ñëpp laa xam Amath Samb maa ngi koy nuyu Babacar Loum ñaar Touré aussi maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu Modou Ndaw nuyu naa waa Arafa yëpp ngeen comprendre ma xam nga dëkk boo ci dëkkee te war a tudd ñëpp war a nuyu ñëpp mënoo tudd kii bàyyi kii waaye bu ma tudd maa ngi jégalu di gis sama mag sama mag la mu yëpp kon daal rek maa ngi jégalu te xam ne ci dëkk bi laa dëkk te ku nekk war naa góor te xam naa sa tur bi nuyu Malick teew fii waaye ku nekk xam nga ne sama càmmeñ la moom laa dafa yëpp maa am mbégte bu baax nag ñëw fii si sama dëkk mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu am yaakaar waaye dëkk boo xam ne solo la ci département bu Koungheul kon tànk yi ma fi ñëwee du tànk yi damaa nekk doom rek ñëw fii waaye tànk tànk tàkku ñaan la waaye tànk aussi delloo delloo nit ñi njukkal parce que ba ma commencé politique ba tey waaral fa aussi wan lañ ma ne ma ñoo ma jur ci lépp loo xam ne nekk naa ci ñu may jàppale ci ñuy def politique ak ñu deful politique kon sama tànk yi tànk delloo jukkal di leen wax ne machine bii ma indi leen lu ma xeeb la ndax lépp loo leen dégg ne maa ngi koy def ci département bu Koungheul rek war naa ko tàmbalee araf war naa ko tëjee araf moo tax ma ne damay séddale ay machine mënu ma ay machine ba mu jeex dama ñëw jox am seen wàll ñi ma jàppale wu noonu tax dëkk ma fi juróomi na dëkk bi moo tool noonu ndax kilifa yu baax yi fi tëdd ak nit ñu dëgg ñu nekk ci dëkk bi kon ñun bu fekkee bëgg nañ nekk ay ndaw di politique xam naa ne arafa ñu ko desale ginnaaw xëy na yéex fee indi dara la ñuy réccu nañ fi nekk ay mana ba ci machine bi ñu indi xeeb nañ parce que nag buñ sañoon suñu réalisation fay ëppee araf waaye di leen xamal ne am na yéene bi te bu soobee yàlla lépp luñ ci ndax ku nekk xam na ne ci ak sama premier mandat bi ma nekk assemblée fu ma waxee tudd naa yoonu araf lépp jafe-jafe boo xam ne dégg naa ko arafa foog naa ne tudd naa ko nag nañ toolu moo tax kon lépp loo xam ne soxla la su ma ko yégee bu soobee yàlla dinaa ci tax jeunesse bi wax nañ dégg naa ko waaye nag balaa nga naan naam da nga fay ku nekk xam na ne man tey bu ma sañoon jeunesse département bu Koungheul dañuy kontaan parce que benn foo rek la am muy football te ku nekk xam na ne def naa ci sama loxo ci lépp loo xam ne mën naa même ko dajut waaye sama yéene mooy bu daj fu nekk loolu moo tardé tey sama coupe bi ku nekk gis na ne daaw def ma coupe li ko waral mooy que man département bi ñoo ma fal te mënuma def dara bàyyi département bi teg naa première édition ñu ne dafa xat département bi mënuñ ci bokk ma nangu ma defaat deuxième édition ñu ne mënuñ ci bokk ma ne nag def troisième bi te bokkuñ du ma ko loolu moo tax sama couple boobu ba léegi déglu leen ma teg te tey suba ñu koy organiser bu d'accord suba sax ma teg ko waaye département bi yëpp danañ ci gox te li ma nekk département bi ñoo ma ko jox ak Koungheul kon ñoom ñëpp daa war a yemale di jégalu bu baax ci képp koo xamante ni ci département bi la bokk.